mbokk yi dalal leen jàmm ci li gën a fas yéttu yëglekaay yi commencé nga xamante ni moo nekk yéenekaay bi def na bilan wu ndaw Sénégal yi nga xamante ni jëm na ca ndax la depuis avril ne lim gi toll na ci 3000 ñoom ñi ñëpp seen yéene moo nekkoon yegg ci bitim réew waaye toll ak 271 personnes nii indi nañ leen ci Sénégal te li ni mel nag mu ngi am ci week wii ñu génn yéenekaay bi yemul ci loolu ndaxte mu ngi xamal ne diggante 12 août bii ñu génn rek am na yeneen ñaari gaal yoo xamante ni benn bi déparé na ca Mbour benn ba ca Fass Boye bu ñuy compter li mu ndaw yi nga xamante ne ñoo nekkoon ci gaal gii loolu na ci 323 jeunes maanaam ci gàttal état bu Sénégal gii li ñu war a xam mooy ba léegi si ndaw yaa ngi génn réew mi da ci diggante mois d'avril ak léegi si rek am na ci biir ndaw ñi ñoo xamante ni ñàkk nañ seen bakkan ca diwaanu Dakhla bokk na ci juróom benn néew yoo xamante ne ni indi nañ ko ci Sénégal ak juróom-ñeent yoo xamante ni ñoo ngi xaar ñu daal di yegg si ci réew mi baabu seen di consul bu Sénégal ca di xam la ci biir yéenekaay bi ne waxoon limug ndaw yi nga xamante ni ñàkk nañ seen bakkan te kenn xàmmeewu leen ba léegi si non da ngay sax waaru na ñoo xamante ni atu yàlla laa la wax ñoom ci dax la ba léegi si kenn mënu leen a indi ci Sénégal gii ndax mënuñ leen a identifier waaye li jommal ñëpp mu di vague bi nga xamante ni ba léegi si arrêté wul ndaw ñi di quitter Sénégal di dem ci bitim réew li waral li demel nag lépp yéenekaay bi dellusiwaat na ci l'observateur naan tookaa réew Sénégal dellul ginnaaw de situation bi nga xamante ni mu ngi am ca Niger réew yi bokk ci CEDEAO fas yéene dem jàmmaarloog armée bi nga xamante ni moo nekk ca Niger réew Sénégal nag ñoom pare nañu pour dem ca combat ba ma la armée Sénégal gii laa la wax ni ki tey jii la ñuy maanaam fi mu nii Sénégal dugal na loxoom ca la nekk ca Niger fi mu toll nii wet ga yéenekaay bi ne en président Macky Sall moom dëgg la mu ngi jéem lijjanti problème ba nekk ca Niger waaye li ko doy sëkk jamono ji mu di élection présidentielle yi di ñëw candidat bi nga xam ne la war a tànn Benno Bokk Yaakaar ba léegi si jubóowunu dèjà ñetti candidat am na ay délégation yoo ko teewul ba léegi si kenn ku ci bu nekk laa la wax mu ngi bokkul ci biir candidat yi sursu aane kaay ma détaillé la kay délégation yi nga xamante ni président Macky Sall mu ngi koy yónnee ci candidat yooyu yéenekaay bi ne ci benn côté bi am na benn groupe boo xamante ne nii ñoo ngi koy ooyee groupe de facilitateur tëkk ko jiite nag moo di Mahmoud Saleh ànd ceeg ñoom Mor Ngom seen yitte nag moo di négocier ak candidat yi te dèjà sax def nañ seen liggéey ba noppi waaye résultat bu positif lañ mënta am beneen moom allié président Macky Sall yi ñoom ñoo composé wu benn groupe ña ca gën a fës nag bokk na ci Modou Diagne Fada Oumar Sarr ak seeni amul en tout cas li nu seetlu mu di Amadou Ba dem na seeti Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Daouda Diallo dem na seeti Abdoulaye Diouf Sarr ñoom ñaan ñi ñëpp kenn ku ci nekk dem na kër Abdoulaye Diouf Sarr lépp ngir mën a waxtaan ba juboo nag ci candidat bi nga xam ne moom la président Macky Sall nar a tànn bañ rek lu ñaaw bañ Benno Bokk Yaakaar daal di explosé wu négociation yi nag mu ngi continué ba jamono ji waaye Abdoulaye Diouf Sarr daal lim leen xamal lenn kese la pare naa pour képp ku président Macky Sall tànn ma nekk ci ginnaawam loolu moom duma ci sax xel ñaar Abdoulaye Diouf Sarr di xam ne ci biir yéenekaay bi ne ñaanuma yàlla laa la wax Benno Bokk Yaakaar daal di explosé surtout nag bu président Macky tànnee candidat am ba noppi bu ñun ñëpp dañuy booloo nekk benn liggéey ngir mën a am ndam nag ci élection présidentielle yi di ñëw en tout mu di am na moom lu ñuy nas ci ndax dèjà premier ministre mook président conseil économique social et environnemental dajee nañu ak Aly Ngouille Ndiaye waxtaan ak moom ci tànneefu président Macky ci fan yi ñu jëm ay Aly Ngouille Ndiaye daa dëgër de lam leen xamal daal jamono jooju yéen kaay taxaw seetlu nag ci attentat yi nga xam te ni ñoo ngi ko doon nas ci Ndakaaru njaay bande yi nga xamante ni jàppee nañ leen ay terroriste te ñu nan la mbir yi demee woon yéen bi moom ñuy xamal ni police nag bañ leen détecté yàgg na lool waaye la leen gën a lool moo dañu bàyyi leen ba ñu ñëw ba Ndakaaru njaay su ko defee danañ mën a jàpp serve bi jàppaale leen ñoom ñëpp waaye mbir yi dañ ko mujjee fuité ndax dañoo jékki-jékki rek Anita TV daat koy mujjee publier ne am na fukki ndaw ak benn yoo xamante ni ay bandi lañu te arrêté nañu leen seen yéene nag moo nekkoon taal Ndakaaru gannaaw ba ñu arrêté kenn ci ñoom tamuy wuyo ci turu Tom Mbodj jamono ji ñuy wax ak yéen nag cerveau bi la ñuy wër ñu gën koo miine ci ninki nanka nee nañu mu ngi dëkk ci duwaanu Ziguinchor Les Échos yéen kay ki ñëpp di wër kay jamono ji mu di Karim Meïssa Wade waaye yàggatul laa la wax mu delsu ci biir réew mi ndax bu ñu sukkandikoo ci biir yéen kay bi waa PDS mu toll ni takku nañu taxaw taxawal benn kuréel goo xamante ni ñoom ñoo yor wàllum accueil bi di liggéey ngir Karim Wade bés bi yegsee ci Sénégal gii ñu accueillir ko accueil liggéey ci suuf nag bokk na ci Alioune Diop Aïdara Silla ak sant ñu daal di dajale képp ko koo xamante ni njabootu PDS nga moo xam nga nekk ci biir wala nga nekk ci biti PDS opération ñibbisi bii nga xamante ni Karim Meïssa Wade lancé na ko bu nu sanoon balaa muy yegg laa la wax ay kàngam yu nekkoon ci biir PDS dellusiwaat ci seen kër bàyyi te moo di PDS am na ki sax ñoo xamante ni Karim Wade moom ci boppam laa la wax woon na leen téléphone waaye yéenekaay bi tamit xamal nañu ne te ni Abdou Karim Mbacke moom tànn na ba noppi de ci élection présidentielle yi di ñëw te kooku du kenn ku dul Abdoulaye jàpp na ne candidat boobu murit yëpp danañ ci a gis seen bopp léegi ci jamono jooju de benn bokk yaakaar moom dañoo tëlee ba léegi mënuñoo am consensus laa la wax ci seen candidat ci élection présidentielle yi di ñëw côté bu nekk nag mu ngay baax Aly Ngouille Ndiaye moom jël na juróom-ñaari dëggam teg ko ci table bi nee na parewul laa la wax pour dummoo yi candidature am bii nga xamante ni déposé na ko ci biir Benno Bokk Yaakaar Aly Ngouille Ndiaye di xam ne ci biir yéenekaay bi wax naa ba noppi na man candidat lay doon moom jàpp na ne mooy candidat bu ñëpp di teg seen bët kooku mënul nekk candidat wu Benno Bokk Yaakaar Aly Mané moom la xam ne ci bi moo di parti socialiste moom ci diwaanu Kaffrine ñëpp rangé wu nañ ci sama ginnaaw waaye ñun ñëpp tamit pare nañu pour soutenir nag Amadou Ba ndax jàpp nañ ne ne moo gën mooy Abdoulaye ne leadership dëgg nag boo koy xool bàyyi Barthélémy Dias moo taskaas yi ndax nee na Macky Sall bu fi tànnee keneen koo xamante ni convaincre ñu tamit dañ koy wan ginnaaw dong waaye bu tànnee ku baax ñun ñëpp danañ ko soutenir nag publiquement waaye nag réew mi fi mu toll président urgence bi ci soble si la nekk lekk de soble si moom faaw ñu wàññi ko ah di doole yaa ngi bëgg a deewaay nag bokk yi continuer di abonné ko bàyyi xel seen chaîne YouTube bii di Mourchid TV tey bàyyi xel télévision bi ngir ñu gën a mën a mottali seen yaakaar ñu yenn ak jàmm ba subaak jàmm incha allah